je suis ministre de l'enseignement supérieur mais au ma martaba limay wax bu leer la martaba prononcé ci di wax am joxe sama ci décision bi nga le conseil de discipline ou assemblée de l'université bu université Cheikh Anta Diop djel ci wax

ay étudiants dee nañ fa ci ñu ne ay étudiants yu jàkkaarloo kenn waxul bu ñu yeewoo da ngay yeewu suba te di liggéey ñu baari tali bi ne la dañuy laaj bourse alors que fekk na ñaar fukki étudiants la juróom fukki étudiants mbaa benn étudiant bu benn classe baare lépp alors que université bi yëpp ngi jàng fitna bu metti gouvernement bi jël décision am ne kenn dootul yeewu université bi ñoom ñoo ñoom ñooy am seen liberté mais liberté bi ci biir université bi la yem kenn dootu ko exercer ci tali bi. ñu jëlee disposition yu leer kenn dootu ko exercer si tali bi ay étudiants di jàng ak seen i jàngalekat ay étudiants yi nga xamné dañ doon dem sandi ji xéer ci biti délu ci gis ne mënatuñ lolu ñu ñëw dugg ci salu classe yi japp jàpp kat yi dal seen kaw jaay leen violence lolu mo am tay duñu wax né ñoñu lan moo lan lañu dal seen kaw lan nga wax ci du lan mo dal seen kaw lan lañ leen tek déedéet lan lañu def ak lu tax ñu def ko ndax war nañ ko def fan lañ ko defee lolu mënuñu ko nangu fi ñuy joxe xam-xam violence waru fa am nous, le gouvernement du Sénégal nous, nous Nous université nous jël nous nous nous, def violence nous ko Nous Nous tamit nañu nous seeni Nous doxal ni nga nous, ne loolu la nous, nous doxal def